daat leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko enquête yéenekaay bi desuwaat ci union européenne mer gi ñu mer fi mu toll nii laa la wax ci décision yi nga xamante ni nguurug Sénégal jël da ko gis ñu géej gi nga xamante ne nii yenn ci ay bato ñu ngi koy napp te jaarul yoon ñoom union nag dañoo gis seen bopp ci yëf yi yéenekaay bi ne mbaadu guerre dafa commencé am nag ci suñu géej gi lépp ñeel jën yi nga xam ne état bu Sénégal moom jàpp na ne dootul permettre yenn yi bu nekkee ne nguurug Bassirou Diomaye Faye gii li ñu bëgg mooy renégocier bépp accord de pêche boo xam xamante ne nii fekkoon nañu nguurug Macky Sall def ko bu ci mel ne Bruxelles nag ñoom ñu ngay menacé dem nañ sax bay xamal état bu Sénégal ne boo moytuwul dinañu interdire di recevoir bépp produit halieutique boo xamante ni Sénégal lay jógee ñoom waa Union européenne yemuñ foofu ndaxte ñu ngi xam ne ay lacunes yu bari nag moo mujjee am ci doxalin gi xeex gi nga xamante ni état bu Sénégal moom moo ngi koy xeex napp gu jaarul yoon gii ni koy doxalee laa la wax baaxul seeni déclaration baaxul réglementation bi tamit dara ci baaxul Ousmane Coulibaly di juriste di xam ne ci biir yéenekaay bi ne lii xeeñ nekk fi mu toll nii neexul surtout ci décision bi nga xamante ni union européenne jël na ko amul décision bu ko gën a contradictoire ci digganteem ak état bu Sénégal lii quotidien ne attention la boo moytu laa la wax coow dina am ci accord de yi nga xamante ni moo am ci diggante union européenne ak état bu Sénégal jubbanti gi nguur gi dëgmal ci accord de yi bëgg ko xoolaat ñoom waa union européenne nag jàpp nañ ne Sénégal ni ñuy doxalee ci xeex gi ñuy xeexee napp gi jaarul yoon ñu ngi ci en même temps di loraale nag union européenne taxawal nañ nag benn commission boo xam ne dinañ déplacé wu ci Ndakaaru Ndakaaru Njaay gii waxtaan ak état bu Sénégal seen mesure yi ñuy bëgg a jël ndax liñ ci seetlu moo di bëri na ay rëq-rëq moo xam ci suivi bi ba ci contrôle bi surveillance bi ci biir géej gi ci yenn ci seeni bato lépp yéenekaay bi deesuwaat na ci tañu xamal ni Sénégal moom fa ñu taxaw ba léegi laa la wax soppiwuñu ko napp gu jaarul yoon gii laa la wax dinañ ko arrêté ci géej gi ak conséquence bu mënti ñëw su boobaa tamit danañ ko mën a dékku waaye dootuñ accepté ti benn bato boo xamante ni waroo nekk ci géej gi di napp suñu jën yi bay lor nag suñu nappkat yi daal bu rëy bi nga xam ne am na nag ci gestion 2018 ci biir état bu Sénégal bambulaagu la kenn mënta nettali ay agent yoo xamante ni ñaari yoon lañ daan recevoir seeni salaire yéenekaay bi na ñoom agent yooyu waxuma la sax dañuy recevoir ay virement bancaire waaye noonu la ñuy demee chaque mois di jëli seeni salaire ci banque yi ñu leen koy jox directement ñuy am ñaari salaire par weer pour des comptes ci boppam ñoo mujjee lijjanti li ne mel explosé dil bi nga xamante ne nii jàpp na ne luy njig di njaag rek direction solde nag mooy njaag yéenekaay bi desuwaat ci dossier Bah Diakhaté dossier bu Dora Gaye ne ñoom ñaan ñëpp am nañu retour de parquet démb lañ leen présenté procureur waaye am na beneen dossier tam boo xam ne jamono ji mujjee naa yegg ca division des investigations criminelles te mooy plainte bi nga xamante ni Thérèse Faye def na ko Cheikh Bara Ndiaye ba yegg na ca dik fi toll nii Direct News moom desuwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni askanu Sénégal ñoo ngi koy dund rawatina nag ci carburant bi nga xam ne bu ñuy a dee a wërngal këpp lu mu fay jar litre bi francs lay jar moom carburant pompe bi yéenekaay bi na xoolal ci yeneen dëkk yi rek yu mel ne Guinée ak Mali ñu ngi jaayee carburant bi francs bu baree ba bëri ñu koy jaayee 866 francs Sénégal di jaayee 990 bi taxaw na seetlu tamit ci ne 850 francs la ñuy jaayee a yombalee ni ñuy fii ci Sénégal yéenekaay bi ne pourtant baril pétrole bi fi mu toll stable na ndax 100 dong na fi mu toll lay jar te commencé naa wàcc depuis 22 avril 2024 ay situation bu Sénégal moom soppeekuwul lan moo waral li ni mel nag lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci l'observateur moom def taxaw seetlu ci fiscalité yi nga xamante ni teg nañ ko yenn ci ay médias yéenekaay bi dala président conseil des diffuseurs di Mamadou Ibra Kane muy alerte nag ci état bu Sénégal gii ne jubbanti da baax na waaye bu ñu lor nag presse national bi musiba mba bakkumba ba amoon tamit ci AIBD di avion Transair bi nga xamante ni amoon na jafe pour naaw enquête baa ngay avancé la ca nag lépp ci biir yéenekaay bi yéenekaay bi des ci coow ni mu ngi ci suñu armée nationale nomination wu Kandé bii nag fi mu toll nii laa la wax mu ngay jur coow indi ay jafe-jafe nag ci suñu biir armée bi yenn ci ay juriste nag joxe nañ ci seen xalaat général Kandé mii nga xamante ne nii dafa mer ba futtu mu fas yéene nag attaqué nag décret bi nga xamante ni président de la république def na ko te bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi am nay experts yoo xamante ni ñu ngi dëggal ne moom général Kandé nag am na droit attaqué décret bii ca cour suprême te su boobaa tamit bu amee dëgg mën nañu bi ni mel lan moo waral nag jamono ji général Kandé Condé ñu daat koy envoyé ca Inde mbaa nekkul ay manœuvre Ousmane Sonko affectation bii yéenekaay bi des waat na ci li ci lëndëm lépp jàpp ne mbir yi nag loxoy Ousmane Sonko génnu ca L'Info yéenekaay des tam ci coow li nga xamante ne nii moo nekk ci affectation générale kande def giñ ko def attaché de défense ca Inde moo jur coow li ndax def cee mer ba futtu yéenekaay bi jàpp ne bu nuy xool ram ak avantage yi mu am mënoon nañ ko yóbbu feneen fu dul génnee ko réew ko yóbbu ca Inde lan moo gaaw mesure yi ni mel na ci kaw général Kandé lii fi mu toll nii moo jara laajte en xamal nañ ne moom général Kandé jege gi mu jege woon nguur gi fi jógee ak intervention yi nga xamante ni forces spéciales yi defoon nañ ko fi surtout ci cadre manifestation politique yi fi daan am ñàkkul na bokk na ci li tax jamono ji moom général Kandé nag ñu daat koy envoyé ca Inde li nekk ci ginnaaw mesures yi nag lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci La Tribune yéenekaay kenn génneegul laa la wax Ousmane Sonko ci affectation général Kandé mi en tant attaché de défense a attaqué décret bi yi nga xamante ne am nañ ko ba ca réewuk France a xoolaat dem sax ba état Sénégal gi mën a tàqalikook yenn ci ay lii bokk na ci li waral mesure yi ni mel ñoom autorités yi bees yi yéenekaay bi dañu xamal ni demoon nañ sax bay bëgg a jënd benn système d'écoute boo xam ne li muy jariñ moo di dajale ay information yenn ci ay application de communication yu ci mel ne WhatsApp Telegram ak Signal comme Sénégal sénégalais yi bëri fi mu toll nii ñu ngi koy utiliser état bu Sénégal mën a am nag mais mise ci appareil yi ni mel lii ñuy togg nii nag yéenekaay bi xamal nañu ne sotteegul waaye bokk na ci li waral mesure yi nga xamante ni commencé nañ ko jël ba ci affectation générale Kandé bii ci la bokk yéenekaay bi ne waaye ku wax lii rek wax lee ndax góorgóorlu yi fi mu toll ngi bëgg a dee nag ci tabaski bi nga xam ne xar yi niñ koy jaayee cher na lool ndax mi ngi tàmbalee ne direction ba fi mu toll nii am nationale bi nag am nañu kilifa gu bees Mame Seydou Ndour ci boppam moo remplacé Seydou Bokar Yàgg yéenikaay bi dañu xam le kan mooy directeur général bu bees bi nga xam ne moo nekk ca police parcours am jaar-jaaram expérience am internationale ak kuréel yu mag yi nga xamante ni jaar na ko ci bitim réew lépp yéenikaay bi dellusiwaat na ci ba tey suñu environnement bi premier ministre moom jël na ci ay mesures ndax jàpp na ne direction eaux et forêts bari na ci ay bërëbam yoo xamante ni ñu ngi koy menacé premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne mu ngi nar am na ci suñu environnement bi dagg sunu garab yi nekk ci forêt yi fas yéene amal nag benn conseil interministériel boo xam ne nag ci dossier bii lay waxtaane source amam desuwaat ci campagne agricole bii nga xamante ni li ciy xeeñ neexagul ndax ba jamono ji ñuy wax ak yéen ay rëq-rëq am na ci donte état bu Sénégal mu ngi génnee ay milliards et milliards di ko teg ci table bi waaye yéenekaay bi xamal nañu ne ba démb démb démb rek laa la wax ci guddi fournisseur semence yi nag amaguñ li ñu bëgg recevoir uñ benn notification boo xamante ni ñu leen di yëgal ne produit yi ñu soxla nañ koo jot maanaam fi mu toll nii li ñuy ak li am safee yéenekaay bi yemu ci ndaxte mu ngi ñi xamal ni ci jamono bi nga ne ba tey ji semence ba yeggu fa fu ci mel gerte laa la wax dem fooxuma laak ñebbe ak yeneen i produits yi nga xamante ni soxla nan ko ñoom baykat yi ba léegi ñu ngi toog di xaar lu dul nag ceeb bi nga xamante ni ñoo ngi koy bay agriculteurs yi fi mu toll nii ñoo ngay sëngéem yéenekaay bi ne opérateur semencier yi ñoo ngay signalé nag état bu Sénégal seen dette bi nga xamante ni amoon nañ ko ci campagne agricole 2023 jàpp 2024 tolloon ci 91 onze milliards cinquante trois milliards yi nag ñoo ngi ko yoreel banque agricole ba tey yéenekaay bi des ci wàllu politique ak parti bii di APR nga xam ne jamono ji ñu bëri dañoo gis rek ne Amadou Ba moom donga mer ndekete ña mer nekk ci biir parti ba foo ko natt rek weesu na ko ñoom responsable APR yi ñu ci bëri nag dematuñu réunion dañoo toog ndaxte dañoo mer te merewuñu kenn na ku seen njiit gii di Macky Sall bi sax dañu xamal ne ndekete depuis mu tànnoon Amadou Ba boobu la ñu xam ne Macky Sall mii ank yi muy yëkkati nii moo di sacrifier leen moo tax fi mu toll nii ñu ngay fippu ñoom responsable yi te sàkku nag ci président Macky Sall bu bëggee jàmm ci biir partem bii na ñibbisi na ñëw ci Sénégal gi toog waxtaan ak responsable yi def évaluation nag ci élection présidentielle yi ñu génn xam lan mooy faay yi ak lan moo tax ñu daal di am defet ci kanamu Pastef yemuñ ca ñoom responsable yi ndax li ñu bëgg gëmal Macky Sall mii moo di munoo toog fa nga toog nag di régler parti bi loolu c'est impossible li moo di nga ñibbisi ci Sénégal gii waaye toog muy dox ci bitim réew loolu moom Karim Wade dong la jig waaye yow jigu la kon nag faaw bi si def évaluation ci élection présidentielle yi ju génn jubbanti sa parti bii lu ko mooy féewaloo gii nekk ci biir APR laa la wax day continuer <laughs> mbokk yi continuer di abonné ko bàyyi xel seen seen YouTube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar yéen ak jàmm suba ak jàmm allah